ciil île bi ñu tuddee île mémoire ngelaw yaakaar dal dina fi law askanu gore di waajal ab xew-xew boo xam ni dana soppi seenub na mu di ñëwug chaloupe bu bees di ab commande présidentielle boo xam ni port bu Ndakaaru moo ko daal di taxaw beneen gan bi mooy chaloupe bi gan bu bu mag bi boo xam ne ganu VIP mooy président ma Sall gis naa waa Gorée dañu am cawarte dañu kontaan ci loolu. demoon naa ba Istanbul gisi baal gaal gi dugg naa ci gaal gi gis naa gaal gi nu mu mel gaal gi dëgër na gaal gi bees na gaal gi rafet na gaal gi dina mën a faj suñuy ajo yëpp. ñu embarqué ko ci ab navire cargo fukki fan ak juróom ci weeru janvier paquebot bile daal dina jóge ci saa si foofee ca Turquie wutali Ndakaaru. gaal gaa ngi ñëw mu ngi ci géej gi dañ ko yeb ci beneen gaal bu am solo bu mag. incha allah dina yàgg donc lii du ay rêve du ay jënt réalité la. embarcation bi de njiitu réew Macky Sall moo ko fas yéene inauguré ngir loole directeur général bu port autonome bu Ndakaaru ànd ceeg mairie bu Gorée daal di tëral ab comité d' organisation. dañuy war a def benn comité de suivi comité de suivi boo xam ne waa Gorée lu ci bokk ñun suñu équipe port ñu bokk ci fexe ba li waa Gorée war mën a pare pour accueillir chaloupe bi ak président jaar yoon. fexe aussi li ñu amoon ci ay difficultés ñu war a ci situation bi war ko mën a régler. ay coppite nar gunge ñëw chaloupe bile ngir soppi xar kanamu liaison maritime Dakar gore donc dañuy def service voyageur intégré ay ndaw yoo xam ne dañ leen di tàggat former leen ci gunge gan chaloupe yi am ñu leen ñu leen di defar dañuy costé waat Gorée. lu Gorée am difficulté wala dellu dakaar ñu jox leen chaloupe ñu dem. bi ñu tuddee Boubacar Joseph Ndiaye di ancien conservateur bu maison des esclaves dana gën a ñoŋal liaison maritime Dakar Gorée ñu koy xaarandi fii ci Sénégal ñetti fan ci weeru février atum 2024.